sëriñ sa mbàkke sëriñ sa mbàkke mi ngi feeñ jamono ci atum 1916 ci dëkk bu ñuy wax gaawaan gaawaan waajuram woo maam cheikh anta mbàkke ak ngërëm moo ko goroon ci dëkk boobu la sëriñ sa mbàkke miy feeñe jamono ci atum 1916 di doomu soxna maam soxna jóob ak ku ñuy wax maam cheikh anta mbàkke boroom dërëm ak ngërëm sëriñ sa bi mu feeñee jamono ci atum 1916 waajuram maam cheikh anta mbàkke maam moor jaara magi mag la ko tuddee mu bokk ci ci turandooy mammoor jaara yi di magi mag mammoor jaara nag ak ku baax ki sëriñ tubaa seexul xadim ñoo bokk soxna jaaratullaahi ak mammoor anta sali mbàkke di magitim ci waajuram maam cheikh anta mbàkke ndax mammoor jaara ak maam cheikh anta mbàkke ba tey itam ñoo bokk mammoor anta sali mbàkke kon moom sëriñ saam mbàkke magu waajuram lañu ko tudde di mammoor jaara moom sëriñ saam mbàkke nag am na ñu mbokkal maam soxna jóob ñu ràññee ci elaaji daam mbàkke ibnu maam soxna jóob ibnu maam cheikh anta mbàkke ak baneen sëriñ saam mbàkke ibnu soxna Diop ibnu maam Cheikh Anta Mbacke kaneen itim ku tuddaatoon sëriñ saam mbàkke ibnu maam soxna jóob ibnu maam cheikh ak moom sëriñ saam mbàkke ibnu maam soxna jóob ibnu maam cheikh anta mbàkke sëriñ saam mbàkke ñett la bokkal maam soxna jóob ak moom muy ñeent muy elaaji daam mbàkke ak yeneen ñaari sëriñ saam mbàkke ak moom moom muy ñett kon kii di maam soxna jóob am na ñetti sëriñ saam mbàkke ak kii di maam cheikh anta mbàkke ñetti sëriñ saam mbàkke yépp nag maam moor jaara magi mag la leen maam cheikh anta mbàkke tudde bi matee dal alxuraanul karim sëriñ Sam Mbàkke waajuram maam Cheikh Anta Mbàkke ci daara ji nekkoon ci daaru salaam la ko yóbbu woon ngir mu dal alxuraanul karim mook doomam ja sëriñ Moodu ya Mbàkke ñoom ñaar la yóbboondoo ci daara jooju nekkoon ci daaru salaam mu jébbal leen ku ñuy wax sëriñ Abdullahi Jaane moom moo leen dalal alxuraanul karim sëriñ Abdullahi Jaane moom moo leen jàngal alxuraanul karim laata ñuy bind kaamil bi nag mook sëriñ Mustapha Ceytu Mbàkke maam Cheikh Anta Mbàkke mi nekk seen waajur jébbal leen sëriñ Ndaam alimul xabir kon ci loxoy sëriñ ndaam abdourahmaan loo nag lañ nekk ba bind kaamil bi ba tàmbalee jàng sax nag lii di xam-xam bi matee jàng nag lii di xam-xam waajuram maam cheikh anta mbàkke sëriñ mbàkke buso la ko jébbal ci gede sëriñ mbàkke buso nag doomam ja sëriñ asan buso la ko joxoon kon jaar na ci loxoy sëriñ asan buso ci gede ci wàllu xam-xam ginnaaw bu mu jógee gede nag la ko waajuram wa maam cheikh anta mbàkke booleeg rakkam ji sëriñ mustapha ceytu yóbbu leen nag ci réew mi di arabi saoudite ngir ñu gën a géeju ci wàllu xam xam-xam ba ni ñibbisee waatee ci biir réew mi ginnaaw bu ñibbisee nag ci biir réew mi sëriñ Sam Mbàkke kii di waajuram maam Cheikh Anta Mbàkke daaru salaam la ko bàyyi woon dénk ko nag taawam ba di sëriñ Moodu Maamun Mbàkke kon ci loxo loxoy sëriñ Moodu Maamun Mbàkke la nekkoon ci daaru salaam ginnaaw bi nag waajuram maam Cheikh Anta Mbàkke jëloon na ko mook rakkam ja di sëriñ Moustapha Ceytu Mbàkke wax leen nag ñu wër Afrique muy liñ tudde woon tournée africaine ab bato leen luyee loon jamono jooju ndax xamoon na ne ñoom ñaar ñooñu kat danañ ko wuutu xamutukat danañ xam nag lii di àdduna ngir maam Cheikh Anta Mbàkke bëggoon ñaari doom yooyu nag yeewu ci àdduna moo taxoon mu waxoon leen ñu def tournée africaine ginnaaw tournée africaine boobu nag mu ñëw nag nekk nag ci ginnaaw waajuram maam Cheikh Anta Mbàkke nekk itim nag ku sës rëkk nag ci waajuram maam Cheikh Anta Mbàkke waaye nekk nag ku kiimaane nekk itim nag ku woyof ba yéemoon sax ay taalibeem ak ñi xamoon bu baax a baax kii di sëriñ Sam Mbàkke daana wax ne doomu aadama yépp a yam ndax doomu aadama ku suñu boroom xamoo ko moo tax itim daana liggéeyal suñu boroom boppam ci doomu aadama yi liggéey boobu mu daal liggéeyal suñu borom ci doomu aadama yi moom sëriñ Sam Mbàkke bu maam Cheikh Anta Mbàkke loolu itam tax na ci ay taalibeey boppam bari na ñum tudde ak njabootam ñu ràññee ci ku ñuy wax sëriñ Mbay Jóob Mbàkke taalibee boppam la ko tudde te doomam la ku nekkoon jëwriñu daaraam la tudde doomam jooju mu nekkoon ku ñuy wax Mbay Jóob jiite woon daara ju tudd Malaka jëwriñu daara jooju nekkoon donga itam ci kër gi sëriñ Sam Mbàkke na ko doomam ndax sëriñ Mbay Jóob Mbàkke mi ngi fi te Mbay Jóob jëwriñu daaraam la ko tudde kii sëriñ Sam Mbàkke ay dongaam ak ak njabootam benn la leen defoon ba tax na bari na ci ay taalibeem yu mu tudde ay doomam ñu ràññee ci ku ñuy wax bàyyi Daam Jóob nekkoon ab chauffeur fraudeur dëkkitim ci gaar bu mag tudde ko doomam ndax Baye Daam Jóob Mbàkke mi ngi fi te chauffeur la woon nekkoon xaritu sëriñ Sam Mbàkke ba tax na bi sëriñ Sam Mbàkke amee doom mu fayee na ko kooku ndaxu kóllëre ba tey ci yéeme gu sëriñ Sam Mbàkke yéeme woon faboon ak njabootam ak ay taalibeem defoon leen muy benn nga xam ne woon ko am ak ko ñàkk ñàkk xàmmeewul woon ku yor doole ku ko amul xàmmewul woon ku pësteefu ak ku ko ñàkk moom daal doomu aadama la daa wax ne suñu boroom rek moo ko xam ba tey ku ñuy wax abdourahmaan ab chauffeuru taximaan la woon dëkkoon itam ci dëkk bii di mbuur tudde na ko sax doom ndax sëriñ abdourahmaan mbàkke bu sëriñ sam mbàkke mi ngi fii te ab taximaan la ko tudde sëriñ abdourahmaan mbàkke mi sax moo topp ci xalifa sëriñ sam mbàkke jamono ji nëga ni daaw sax la jël retraite moo jiite woon lépp luy magasin ci sonatel ab chauffeuru taximaan la ko sëriñ Saam Mbàkke tuddee ndax kóllëre gum amoon nag taximaan boobu noonu mu ko defe ci taalibe yu góor yi itam ni la ko defe ci taalibe yu jigéen yi ndax sëriñ Saam Mbàkke jortoon na ne daal képp ko ba ñépp topp la kooku mënatoo koo fay ba tax na ku ñuy wax Ami Saw sëriñ Saam Mbàkke tuddee na ko doom Ami Saw mi ci kër sëriñ Saam Mbàkke la nekkoon wala mu fa daa ñëw lu bare bare rek ba sëriñ Saam Mbàkke ràññee ko ca kër ga dem na itim ba tudde ko doom ndax soxna Ami Saw Mbàkke ma nga fa Saw moomu la ko tudde sëriñ Sam Mbàkke itam tudde na ko doom ndax soxna Ami Jéey Mbàkke mi ngi fi te Ami Jéey moomu lañ ko tudde ak ñeneen ak ñeneen ci njabootu sëriñ Sam Mbàkke ñoo xam ne ni sëriñ Sam Mbàkke ay taalibeem ak ay wëllërey boppam la leen tudde daana wax ne doomu aadama moo am solo te loolu itam xamoon na ko daana ko jëfe ba tax na liggéeyal na suñ boroom ci lu baree baree bari ci doomu aadama yi noonu mu fonke woon ay taalibeem ak ak njabootu boppam ba tax na bu masaa am sax ñaari tudde ko kenn ci ay taalibeem soppeem xale yi itam noonu la meloon ci ñoom bari na xale yu nekk ci diggante daaru salaam ak gaawaan heure buñ masaa jooy seeni waajur sëriñ sam mbàkke lañ koy yit mu leen di nax ka toppatoo ngir bëgg gu mu bëggoon xale wala bëgg gu mu bëggoon doomu aadama bëgg googu mu bëggoon doomu aadama ak fonk googu mu fonkoon doomu aadama moom sëriñ saam mbàkke bu maam cheikh anta mbàkke dem na itam ba taxoon na daawul tëju saa bu masaa xëy li ko dala six heures du ba vingt-deux heures ci guddi ci buntu këram la di yi ko soxla di ko seet si loolu itam taxoon na suñ mbokk jigéen yi dama dem ba tuddee ko saam buntu kër ngir toogaay bu mu daa toog ci buntu këram saam buntu kër googu sax demoon na ba moom mu xamal ko boppam ne doomu aadama yi saam buntu kër lañ koy woowe ndax yàgg gum yàgg ci buntu këram te booba itam nag moo toog toogaayu maam cheikh anta mbàkke nekk ñeenteelu xalifa maam cheikh anta mbàkke ndax moo wuutu cheikh ibrahima ndar ci xilaafa gi toog googu mu daa toog ci buntu këram ba suñ mbokk jigéen yi tudde woon ko tur woow di saam buntu kër ñaari nit daana ñëw di ko seet si wala nit ñëw di ko laaj soo waxee sëriñ saam mbàkke mu ne la déedéet waxal tur yu ma ñëpp xame muy saam buntu kër saam buntu kër daal soo ko waxee ñëpp xam ne maa tax ngay wax kon dee ma woowee tur woowu loolu rek ba tey day wane ne woyof gum amoon ci doomu aadama yi ba tax ne nit daana ñëw di ko wax sëriñ saam mbàkke mu la déedéet waxal nag tur yu ma ñëpp xamee mooy saam buntu kër waaye sama buntu kër nag maa ko moom heure bu ma neexee laa ciy toog heure bu ma neexee laa ciy jóg kóllëre googu mu amoon ci taalibe liggéey boppam ba fonkoon leen ak doomu aadama yi nga xam ne nii ñoo ko toppoon ngir maam cheikh anta mbàkke ak njaboot gi mu séqal maam cheikh anta mbàkke noonu itam ni la ko amee woon ci njaboot gi nga xam ne nii nag ñoom la séqal xaadim rasul moo xam cheikh mamadul mustapha mbàkke kii di sëriñ saa mbàkke tudde woon na ko doom cheikh mohamadul fadal mbàkke itam kasalika ndax ñoom ñaar amoon nañ ak kóllëre gu yéeme cheikh abdul ahad mbàkke sëriñ saa mbàkke tudde na ko doom cheikh abdou xaadir mbàkke itam naka noonu ndax sëriñ jiili bu soxna njole mi ngi fi te Abdou Xaadir Mbàkke la ko tuddee Cheikh Mourtada Mbàkke wëllëreem la woon xaritam la woon ba tax na sax jumaa jooju mu tabaxoon ci gaawaan kii di Cheikh Mourtada Mbàkke moo tegoon xeer wa sëriñ Muudu Maamun Mbàkke nekkoon magam tañ bokk maam Cheikh Anta Mbàkke itam sëriñ Sam Mbàkke tudde na ko doom El Hadji Tàkko nekkoon ñaareelu xalifa maam Cheikh Anta Mbàkke itam tudde na ko doom ndax wëllëre la woon ci sëriñ saam Mbàkke doomu maam Cheikh Anta bi ñuy wax sëriñ Ibrahima Assu Caam kii di sëriñ Sam Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Mustapha mbàkke ceytu moom xaritam la woon wóllëreem la woon ba tax na njabootu sëriñ saam mbàkke gu bare bare bari sëriñ mustapha ceytu la leen joxoon ngir mu yar leen ba tax na itam tudd na doom sëriñ mustapha ceytu ndax ñoom ñaar ñoo jàngandoo alxuraan te ñoom ñaar itam bari na lu leen maam cheikh anta mbàkke boole ci seen tu tànk ak kóllëre doxoon na ci seen diggante elaaji daam mbàkke nekkoon mag ci sëriñ saam mbàkke moom sax la tudde xalifaam bi ko wuutu doomu maam cheikh anta mbàkke la woon sëriñ moodu roqaya mbàkke itam doom ci sëriñ Sam Mbàkke sëriñ Sam Mbàkke tudde na ko doom sëriñ Mamor Mbàkke Dende itam wërlëreem la woon xaritam la woon ba tax na ñoom ñaar itam daan nañ seetente sëriñ Ibrahima Mbàkke njurul itam wërlëreew sëriñ Sam Mbàkke la woon waa kër Mamor Jaara seenub cër ci njabootuk maam Cheikh Anta Mbàkke sëriñ Sam mii la ndax kan moom lañ duppee seen waajur wa borom Sam sëriñ Ousmane Mbàkke Nooréyni ñoom ñaar moom nañ bokk benn lal bu ñu tëdd kon ñoom ñaar ay kóllëre lañ woon ak ak wóllëre ndax seddeel ak njabootam daa leen wax ne sëriñ Ousmane Mbàkke moom kenn la woon ci man noonu mu ko amee woon ci njabootuk sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim gi wala ñim bokkaloon ëttub ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ci wàllu góor njaboot gu jigéen ngi itam naka noonu bépp njabootuk sëriñ Tuubaa Seexul Xaddim ñu man cee ràññe soxna Fadja soxna Moomi soxna Assu Gaawaan ak ñeneen ak ñeneen kii di sëriñ Sam Mbàkke tudd na leen doom soxna Assu Gaawaan moom xaritam la woon ba tax na sax ñenn ci njabootuk sëriñ Sam Mbàkke gi soxna Assu Gaawaan moo joxe seen tur ñu ràññee lii di Baye Fall keroog bi mu matee am aw tur soxna Astou Gawane moo wax sëriñ Sam Mbàkke ne ko mu fayee ko maam Cheikh Anta Mbàkke loolu moo waral sëriñ sii di Baye Fall am ca kër ga sëriñ Sam Mbàkke nag amoon na ay daara yum amoon daa fa bay di fa liggéey ngir mbooloo mi ko sëriñ Tubaa Seexul Xaddim booleel ak mbooloo mi ko yaakaar ngir jëmmi maam Cheikh Anta Mbàkke ji ñu ràññee ci daara ju nekkoon ci dëkk bu ñuy wax gajak gajak mi ngi ci wetu dëkk bii di Bambey mbay na dëkk bu tudd Tingiti Tingiti ci wetu dëkk bii di axat mbàkke amoon na daara itam ci dëkk bii di gosaas gosaas googu itam amoon na fa kër ba tax na marché bu mag ba fa nekk itam moom lañ ko tudde marché sëriñ saam la ñuy wax marché bu gosaas te sëriñ saam mbàkke mii lañ ko tudde ba tey ci dëkk boobu di gosaas màggal giñ koy fàttaliku muy màggalu sëriñ saam mbàkke ci dëkk boobu di gosaas lañ koy defee ci kër googu mu fa amoon amoon na daara itam ci dëkk bu tudd malaka malaka mi ngi ci wetu dëkk bii di njenne ak lagan foofu itam amoon na fa ay tool di fa bay ngir seexul xaddiim booleel ci daara yooyu la nekkoon di bay ba ni mu toogee xalifa ci atu atum 1987 mu toog nag xalifa ci atum 1987 nekk nag ñeenteelu xalifa maam cheikh anta mbàkke wuutu nag njabootug maam cheikh anta mbàkke gépp nag njabootug maam cheikh anta mbàkke géyitam topp ci ginnaawam di ko xoole maam cheikh anta mbàkke mu liggéey nag lu am solo ci xilaaf ak maam cheikh anta mbàkke moom sëriñ sam mbàkke ndax kat jumaa ji nekk fële ca gaawaan di dëkkum maam cheikh anta mbàkke te sëriñ tubaa seexul xaddiim gane si woon fa Anta Mbàkke ci diirum ñetti fan jumaa ji sëriñ Sam Mbàkke mi mooy ki ko tàmbali ci atum 1996 Cheikh Mourtada Mbàkke ibnu Xaadim Rasuul moo teg xeer wa lii di kër boroom gaawaan nga itam moo ko miiree tabax fa ay bâtiment tooli boroom gaawaan yi nekkoon foofu itam ci gaawaan moo ko tàmbaliwaata bayaat ci bi mu nekkee xalifa maam Cheikh Anta Mbàkke soqaliwaat lii di màggalug maam Cheikh Anta Mbàkke gi ndax itam bokk na ci ñi ci jàpp ba mu toll fii mu toll wuuf nag ay rakkam ak mbooleem nag ñim séqal maam Anta Mbàkke fexe yëkkatiam ba benn taalibeem maam Cheikh Anta Mbàkke bëtam xonqul lu waay jaaxle ak noo ko man di jaaxle boo ñëwee sëriñ Saam Mbàkke fajal la ko ndax daawul tëju ci buntu këram la daa toog bañ koy wooyee Saam buntu kër yéeme googu mu yéeme woon ak toogaay googu mu toogoon toogaayu maam Cheikh Anta Mbàkke moom sëriñ Saam Mbàkke tax na doomam ji di sëriñ Xaadim Mbàkke def na am marsiya bu yaatu ci waajuram wow di sëriñ Saam Mbàkke ci melokaanam ak jikkoom ak taxawu googu mu taxawu woon njabootug maam Anta Mbàkke la femme rawatina ci dëkk boobu di gaawaan marché bu yaatu daal la doomum ji di sëriñ xaadim mbàkke def ci moom ñu teewlu lenn lu bokk ca marché ba dem cay tàgg jikko yi waajuram woowu di sëriñ saam mbàkke ñu lu ko adduna yaa néeg nun de yaanu wor jëroo bëgg jëroo wut ci xam nga ni doo kër alaaji saam wàcc nga gàlli wuloo ci kër cheikh jëfal nga ko loo xam ni kenn dootu ko jëf ba ba nuy jeex gaawaan yaa miire kër ga mat na téeméeri meetar yu yi doo ko door jumaa ngi teg fanweer ci xaalis Cheikh Mourtada Mbacke moo njëkk tegu xeer gaawaan ya andi ndox ma yaa fa def jumaa ja yaa andi yono ba gaawaan billaahi yaay waaja yaa tuxal ginne yaag ya yada jommale ka fadde leeral dëkk ba aar leen ba waxtu wu leen neex tëddi gaawaan yaa fa gën moo tax billaahi wét nanu tey yaa mat wéttal taxam xorom Mbacke doo ko tooy yàpp xarak yàpp ganaar la daa jox waa gaawaan kenn du xiif kenn du mar kenn du jaaxle bay xaaraan awaalim nga ndax Cheikh jàngal kitaabullaahi te Cheikh Mbàkke Buso moo la jàngal xam-xam li wajhillaahi ba mu fa jugee la dem jàngi ba àgg màkkatal mukarram mook Sëriñ Mustapha cayitu ñoo njëkk a génn bul ko sikk adduna daw na wut si la nga wan ko gannaaw ba mu far wii ndax adduna mënta romb yaa di donay Anta tey itaaso teeraaso wuto oto ki kër loo masa am def ci kër Cheikh Anta Mbàkke yaa di gor fàgguwuloo ci adduna lu ngërëmal Cheikh ak riddal rahmaani yàlla na la yàlla fay gën ji fay tabbal xaadim maa ngi taxawlu tey sàkku say ngërëm jéggal ma te yërëm ma ëllëg bis ba ñu jëm wasallim ala sayidina muhammadin sunu yeneen ba nu gëm wa ala alihi wa sahbihi wa qaddimihi wa cheikh alhaaji sam mi ñu gëm loolu mooy marsiya bi ko doomam defal di sëriñ xaadim mbàkke ngir jagleel ko waajuróom wow di sëriñ saam mbàkke sëriñ sa mbàkke nag nekk nag ku kiimaane ku yéeme ba tax na itam lii di wàllu ñaan itam daana ci yëngu bépp jafe-jafe bu waay masaa am soo ñëwee ci moom su la ko waxee soo demee dana faju ndax kat boroom xaas la woon baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moo ko ko ñaanal ndax sëriñ saa mbàkke bi mu feeñee jamono waajuram maam cheikh anta mbàkke da koo jëloon yóbbu ko ci ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim ci njaareem keroog mi ngi doon xamal ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim moom maam cheikh anta mbàkke di ko wax ne sama doom jii de maam moor jaara magi mag laa ko tuddee waaye nag kii mooy ñetteelu doom bu ma ko tuddee ndax damay def ko heure bu ma amee doom bu ma ko tuddee mu dellu waaye nag fii gisuma ku taxaw duma ba ma bëggoon na am barke keroog sëriñ sàmbake doon na wax ne ko baax ki sëriñ tubaa seexul xaddim cere la leen faboon jox leen ko moog waajuróom wa maam cheikh anta waaye cere ja nag dafa ënnoon moom booba nag tuut tànk la ci wàllu zaayir maam cheikh anta mbàkke jëfandiku nañu cere ja waaye moom dafa bañoon na jëfandiku ca cere ja ndax ci jataay ba moog sëriñ tuubaa ak maam cheikh anta xamal sëriñ tuubaa ak maam cheikh anta mbàkke lekk ca cere ja ndax cere ja dafa ënn nee na keroog waajuróom maam cheikh anta mu mujj tibb ca cere ja leel ko ko ca jataay boobu itim ba tey la ko ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim na ko àndu sil mu àndu si mu ne ko ŋaal mu ŋaas ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim tufli ko ci gémmiñ bisub kero sa sëriñ saam nee na mi ngi wax ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim yi fi salte yi ngay def nag lu la ca xiir sëriñ saam mbàkke nee ginnaaw bu waxee lool ku baax ki sëriñ tubaa seexul xaddiim waajuram maam cheikh anta mbàkke moo fab loxoom teg ci gémmiñam ku baax ki sëriñ tubaa di ko wax ne bàyyi ko sëriñ saam na nag ay jataay jataay nag di nettali nag histoire bi ma leen nettali na jaar na ci tubaa tubaa seexul xaddim ci njaarim te booba ab tuut tànk la daana toog ci jataay di wax ni ay sama tuflit ya bu doon tey ji wala sama cere ja bu doon tey ji loolu itam tax na sëriñ saa mbàkke nag yoroon barke ak li ñu tudde xaas ba ñaara lu masaa wax doomu aadama mu dal ko moo tax nit daana ñëw ak ak jaaxleem dalay wax ne demal dana faju te noonee mu la ko waxee ni nga koy gisee am na benn bisitim benn agent su SDE ñëwoon doon kuppee ndox foofu ca kër ga ginnaaw bu sëriñ saam mbàkke jógee ci dëkk bi di gaawaan ñëwaatoon këram gi tombeek agence su SDE boobu ñëw nag di couper si ko xamal ne demal nag dañu ñëw fay si mi waaja nag di ko xamal ne man kay sama service moo ne ma demal couper ndox ma keroog sëriñ saam nee na ko yow di duutoo couper waajooj laataa muy am 30 minutes oto jaar na ci kawam ginnaaw bu ñëwee nag wax ko sëriñ saam mbàkke sëriñ saam mbàkke mi ngi doon wax ne da ko doon tooñ dong nakate suñ boroom fekk si na ko ak yeneen nag yeneen ni kiimaan yuñ mën a wax ne sëriñ saam mbàkke def na ko ndax sëriñ saam mbàkke mbàkkee nitu xaas la woon loolu itam taxoon na dëwul tëju kenn dëwul na butu kenn soxla su waaye masaa amitim soo ñëwee mu saafaraal la ko ndax ci buntu këram la daa toog bañ tuddee ko saam buntu kër ngir xaar askan wi ci seeni jafe-jafe ci loolu nag la sax ba nim génnee àdduna ci atum 1998 sëriñ saam mbàkke nag ci dëkk boobu di gaawantam feeñe fa jamono te waajuram goroon ko ci dëkk boobu itam la ko feebar tërale ñu jële ko nag ci dëkk boobu indi ko ci njaareem ci sàkkuteeg doomam mbàkke moom sëriñ elaaji tàkko mbàkke bu maam cheikh anta mbàkke moo sàkk woon ci njaboot gi ñu indil ko ko ci njaareem ngir mu yor ko foofu ginnaaw bu buñ ko jëlee njaareem nag lañ ko yóbbu nag ci dëkk bii di ndakaaru ci bu buñ tuddee la Dantec ci hôpital la Dantec boobu sax lu yéeme yéeme xew na fa ci diggante sëriñ Sam Mbàkke ak docteur yi ak hôpital ba ndax ka docteur yi heure buñ masaa bëgg faj kii di sëriñ Sam Mbàkke courant day coupé buñ ko bàyyee wala seenum xel jóg ci sëriñ Sam ngir faj kaneen courant bi ñëw bëggul woon docteur yi laal ko loolu moo tax heure bu docteur yi mësaa jël décision ngir ñëw di ko faj si courant coupé te buñ taalee groupe ba itam group bi du nangoo tàkk mujj gi nag la sëriñ Sam Mbàkke sàkku nag ci njaboot gi ñu jëli ko nag ci hôpital boobu di la Dantec indi ko nag ci Daaru Salaam ndax ka dogal bi xam na ne egsi na ginnaaw buñ ko jëlee nag ci dëkk boobu di Ndakaaru ci diirub lu tollu fukki fan ak juróom la nekk nag ci dëkk bii di gaawaan nekk ci Mbàkke Bawol ci kërug boppam gi ci kër googu nag la génnee àdduna ci bisub ajjuma mu dëppoo woon ak ajjuma ñetti fan ci weer wi di weeru rajab ci atum 1419 ci gàddaay gi ajjuma ñetti fan ci weer wi di weeru rajab ci atum 1419 ci gàddaay gi dëppook vendredi 23 octobre 1998 vendredi 23 octobre 1998 ci 16h mooy ginnaaw bu ñu jullee tàkkusaan ba noppi wala ginnaaw bu ñuy waaja julli lii nag di tàkkusaan ci teewaayu ñenn ci ay taalibeem akuk njabootam taalibe yooyu nag ñu ràññee fa ña fa nekkoon ca kër ga ku ñuy wax baay sëriñ mbàkke seexu ak ku ñuy wax sëriñ seexu buso ak ñaari bëkk néeg yi nekkoon nag ca kër ga mu ku ñuy wax saam sàmbu ak ku ñuy wax sëriñ njaay sëriñ njaay mii nag moo nekk nag ci rajo bii di diso fm nekk suñu nattangoo booba nag sëriñ njaay itam bëkk néeg la ca biir kër googu nekk itam ku sasoon rëkk ci sëriñ saam mbàkke ak doomam ji ñuy wax elaaji daam mbàkke dikki ko njëkk a wuutu wala dikk ko wuutu ba nëgëni ginnaaw bu mu génnee àdduna ci àjjuma jooju ci tàkkusaan ceytu ci la sëriñ Moustapha Mbacke ceytu nag ñëwee nag ci kër sëriñ Saa Mbacke xam ne nag sëriñ Saa Mbacke mii kat dogal ba am na te suñ boroom jël na ko mu ne nag nañ ko yëgal ku baax ki sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke ndax booba kat moo nekk xalifa général des Mourides di ko wax ne sëriñ Saa Mbacke moom maam Cheikh Anta Mbacke génn nag lii di àdduna sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke moo wóolu sëriñ Mountakha Mbacke sëriñ Mountakha Mbacke moo ko taxawu moo ko jullee ci gàddaay gi samedi ñeenti fan ci weer wi di weeru rajab ci atum 1419 ci gàddaay gi dëppook samedi 24 octobre 1998 samedi 24 octobre 1998 ñu jébbal ko boroomam ci teewaayu sëriñ Muntaxa Mbàkke ak njabootu maam Cheikh Anta Mbàkke ak ahlu murit gi ca wetu magam ja sëriñ Daa Mbàkke di ki mbokkal maam Soxna Jóob ak kii di maam Cheikh Anta Mbàkke sëriñ Saa Mbàkke ci biir armeer yi Daaru Salaam lañ ko jébbal boroomam ca wetu magam ja Elaaji Daa Mbàkke Mbàkke ay xalifaam nag nii la tëddee bu doonee ci toogaayu maam Cheikh Anta Mbàkke rakkam ja sëriñ Mustapha Ceytu Mbàkke moo ko fa wuutu bu doonee nag ci kërug boppam kam faye magam ja di El Hadji Daam Mbàkke moo ko wuutu ci atum 1998 ba nëga ni ñiy ñaanal El Hadji Mbàkke ak mbooleem ay rakkam di ñim séqal sëriñ Saam Mbàkke moo xam góor ak jigéen ak bépp taalib bépp sëriñ Saam Mbàkke yàlla na suñ boroom guddal fan yi te teg loxo te wéral cër yi sëriñ Saam Mbàkke nag am ñu tudde ak màggal màggal gi nag ñu dëkk boobu mu nekkoon di gosaas ci kër gam fa amoon ndax ci bisub le 23 octobre 1998 la génn àdduna dëppoo woon ak muy ñetti fan ci weeru rajab ci bisub tubaab boobu di ñaar fukki fan ak ñett nag ci weer wi di weeru octobre la ñuy fàttaliku at mu jot daanañ ko màggal itam ci kër googu mu amoon ci gosaas di ko jàppwu ci dat boobu ginnaaw bi nag njaboot gi waxtaanaat nañ ci seen biir léegi nag di ko màggal heure buñ ko jekkoo màggaluk sëriñ Sam Mbàkke amul bis fixe heure bu njaboot gi waxtaanee ba juboo rek wutal ko bis ngir waajur wa sëriñ Sam Mbàkke màggal ga itam màggalug bëccëg lay doon ñuy ñaan ci dara jey trondowu maam moor jaara wa doomu maam cheikh anta mbàkke ba ak maam soxna jóob ja yàlla na suñ boroom yokk ay leeram te taas ñu ci barkeem te guddal fanu njabootam gim fi bàyyi te lii di jafe-jafe réew mi itam yal na ko suñ boroom saafara ci dara jey boroom saam moomu amiin boroom saam moomu amiin boroom saam moomu amiin